ñoo ngi nuyu bu baax a baax a baax soppee almisbaax yépp ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di siyaare bu baax ñoo ngi leen di baalu àq ñoo ngi leen di baalu àq bu baax a baax a baax ndax lu tolloog fukki weer ak ñaar ku koy wax ak aw nit war na léeg nga baalu leen ndax léeg nga juum ci say wax léeg nga wax waxin wow nit mën naa jàpp ne wax jamono naa gën a rafet ñoo ngi sukk ci seeni kanam yéen ñépp di leen jéggulu te di leen wax ni yéene ji mooy jubal rekk léeg-léeg ñu toog ci barab bii di wax am ñoo xam ne ñoo ñu gën a yeyoo toog gi ñoo gën a yor xam-xam bi ñoom la seen kàddu gën a rafet waaye suñ borom subhaanahu wa mooy tànne mbir num ko neexe def na nu toogal leen fii ngeen toogal ñu foofu ñoo ngi koy ñaan moom mi nga xam ne xam na kumpa xam na li ci xol yi ak li ci xel yi yal nañu nangul bépp yitte boo xam ne def nañ ko ak bépp yëngatu boo xam ne def nañ ko te jëmmam tax waaye itam yal nañu jéggal bépp njuumte boo xam ne def nañ ko wala bépp yëngatu boo xam ne def nañ ko te jëmmam taxut moom nag xam na waaw borom bi moom moo gën a xam nit nit donte nit itam ku nekk xam nga sa bopp waaye yàlla moo gën a xam nit sax boppam moo tax yàlla nañu boole nangul ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ndokkeelit ci atum deux mille dix neuf bii nga xam ne moom la ñu daloo yal nañ ko jeexal ak jàmm te jeexale ko aw yiw di ñaan itam ngeen ñaanal ñu bu baax a baax a baax ndax xam naa loolu ñuy faral di wax naan anniversaire ñun moom bisub tey bii mooy suñu anniversaire ndax le premier janvier la ñu ñëwoon àdduna <laughs> moom la ñuy wax moom la ñu judd imaam Assane sekk ne ma boo déggee ak murit nag da nga naan moom nga gane àdduna kon mooy moom la ñu gane woon àdduna ñaan suñu borom subxanahu wa taala yal nañu fi boole yàggal ñoo ngi koy sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu te suñu borom dolli ñoo musal di ndokkeel bu baax a baax suñu soppe yi ak suñu am di jàmm yépp di ndokkeel bu baax itam xarit yi nga xam ne ñoom lañuy àndal yépp ci jotaay bi te li ci doon tawféex mooy ñi ngay am ci ay soppe di ko am ci ay xarit ñépp genn buuma dox seen diggante muy buumu yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi loolu dal na xel lool te loolu ak cant la. te loolu ak cant la ñoo ngi leen ciy sant bu baax di ñaanal bu baax a baax suñu woy jur wu góor moom jiitu ji na yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jéggal yal na yàlla def suñu ñaan yi bokk ci ñaan ya yonent bi waxoon ne ku fi bàyyi doom ju baax mu lay ñaanal doom gi moom mën naa wér waaye yàlla mi xamum baax yàlla ñu dugal ca doom yu baax ya nangu ñaan googu def ko ci ak ruwam def ko ci mboolem ruwu waajur yi jiitu noonu la ñuy ñaanalaale suñ soppee yi ñu doon àndal ci jotaay bi yépp di ci beral ak ñaan e, suñu xarit bu tudd Touba Jaw dëkkoon Kawlax di soppe boo xam ne defe naa benn yoon lañ gisante ci jëmm waaye mu daan bég lool ci liggéey bi moom moom njàpp ndal owal wala boo ca la nekkoon di ñaanal way juróom wu góor nee nañ ma ma nga Kawlax maa ngi koy nuyu baax te di ko ñaanal di ñaanal ay soxnaam di ñaanal ñim doon liggéeyandool yépp noonu lañu ñuy ñaanle suñu yaay ju ñu bokkaloon dëkk fii ci ndakaaru soxna euh, ndeysaan toxoma <laughs> si ñu ngi koy nuyu baax wala boog ñu ngi koy ñaanal suñu borom yokk ko yërmande di beral ak ñaanit suñu wayjur wi ñu jàngal alxuraanul karim di bàyyi alaaji maxtaar silla ndeysaan yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla yërëm coono bi mu sonn ci alxuraan ngir def ko ci ndaw ñi mu yoroon ñëpp yal na ko suñu borom fay coono boobu defal ko suñu waay jur wi ñu yar itam di suñu waay jur sëriñ Saaliwu Silla yàlla na ko yàlla yërëm yooyu dama koo ber ak ñaan ndax bis bi nga gane woon àdduna bu dellu see ku nekk nanga koy dundale te ñun nag yéen lañ am yéen lañuy ñuy waxalit léeg-léeg nit ne la bëgg naa laa xam wala nit ne la bëgg naa xam yaay kan ala kulli haalin loolu yàgg naa am yonent yàlla Muusaa ba muy dégganteeg boroomam déggante ba neex Oustaz Alioune Sall nee na daa daal di wax yàlla ne ko dama laa bëgg a gis ndax communication bi daa neex yàlla ne ko muusa tee ngaa yem ci déggante man espace boo ma mën a recevoir amut Moussa si gi xool montagne mi di xalaat montagne mi moom rëy na di war naa mën a recevoir yàlla yàlla ne ko ci la sa xel dem ne man nga ma cee recevoir xaaral ma ne ko maa ngi ñëw su ma mënee supporter rek ma ñëw waaye falam ma tajalla lil jabali jaxalahoo dakkan wax xarra Moussa sayxa ba yàlla ne daju maa ngi rek doj wa dane moxoñ Muusaa ne këpp suñ borom ne ko moo tax yamal ci dégg gi <laughs> loolu njàngale mu xóot la léeg-léeg nit bëgg a digg nit di dégg nit bëgg ko lool gis ko ne accam yal nañ ci yàlla musal waaw wala nga di ko dégg muy wax wax ju jub mu def rek nga xeeb ko yal nañ ci yàlla musal yal na ci yàlla musal ñoo ngi sàkku seeni ñaan bu baax a baax ci suñu bisub anniversaire bi waaye nag di xaar itam seen nag <laughs> waaw di xaar it seen i cadeau yàlla nañu yàlla boole barkeelal noonu rek la demee bisub tey lañ gane woon àdduna ci dëkk bu ñuy wax Suwal Faajut fa lañ juddoo suñ waajur fa lañ féete woon ñu jóge fa dem jàng ji alxuraan ci la waaw kay jóge fa ñëw njaareem jàng xam jóge fa ci liggéey bi di nab nabi rek lu ne ñu dugg ca waaw lu ne ñu dugg ca. ba dugg ci loxol xarit bu baax di jur di soppe di yarkat di jàngalekat muy oustaz Alioune Sall muy suñu xarit ci yitteem ak yéeneem ak teeteem ci la mbir yi di ame nii ñu di ko jàppe ab tàmbali rek ñaan suñ borom subxanahu wa taala sàmm ko te sàmmuñu ba lim yéeneeg li ñu yéene lépp suñ borom mottali ko mbokk yi foofu doy na cee yem maa ngi ciy sàkku seeni ñaan yal ñu yàlla boole jàppale. di beral bu baax suñu xarit suñu jigéen yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale yépp euh, ci jotaay yi yal na yàlla barkeelal leen ñoo ngi nuyu baax baax docteur Ana ja suñu maam suñu yaay meer Diagne ñu ngi lay nuyu maam Kiné Thiam soxna Aminta Diop waa Daara baax yépp maa ngi leen di nuyu te di leen siyaare ku juum ngeen jéggal ma mhm. suñu bindu démb bi ma ko yëkkati maa ngi doon waxtaan lu jëm ci feet yi nga xamante ne mooy feeti ñi doonati jullit feeti nasaraa yi yi nga xam ne ci lañ jóge war koo àggale mu nekk suñu yóbbal ñu téye ko ndax mën nañoo amal njariñ ndax mën nañoo amal njariñ bañ koy yëkkati ma waxoon la ne ñi nga xam ne dañoo wax ne yàlla ñett la wala yàlla ñeent la suñ borom nee na ñooñu génn nañ ci diine ji yàlla kenn képp la kon bul nangoo wutal mukk ndend yàlla xàmmeel bu baax ab jullit fan lañ ko yamloo ci ay feet ak fan lañ ko yem loowut mu xam fi muy yem mu xam fi muy yem moo tax ma jàngaloon la aaya ja ne la laxat kafara alladina xaalu inna allaha thaalithu salaasa wa ma min ilahun illa ilahun waxid wa lam yantahu amma yaquluuna la yamasanna alladina kafaru minhum adabun alim borom bi nee na ñi nga xam ne dañoo wax ne daal suñ borom subhaanahu wa am na ndend nee na ñooñu moom ay yéefar lañ yàlla kenn képp la te buñ daytaluwul nag continuer ne ci wax jooju ngeen continuer di ca ànd ak ñoom yàlla nee na dinaa leen duma afalaa yatuubuuna ila allah wa yastaxfiruuna wallahu xafuru rahim ndax du ngeen tuub dellu ci yàlla te jéggulu ko moom ab baalekat la mbokk yi ñun ñi àndoon ci liñ xamut mooy dugg ci feet yoo xam ne du suñ yos mel na ñu juumoon ba ànd ci luy wutal yàlla ndend nañ dëpp nag nañ dëpp tuub pitaar yi ñu doon taal <laughs> nañ ko tuub waaw kay nañ tuub nag soppim reer yi nañ suub nañ tuub nuru nuru lu ci e, nasaaraa yi ci seenu feet suñ boroom jéggalekat bu rëy la mal masiixu mal masiixu ibnu maryam illa rasul yonent yàlla isa yàlla nee na sama ndaw dong la la ko jiitu woon it amoon naa ay yonent yu fi jaaroon ñoom muusaak ñoom ibrahimaak ñi leen jiitu ñépp ndeyam yàlla nee na ku dëggal la wa ummahu siddiqa ñoom ñaar yàlla nee na kaana yakulaani taam ci suñ borom yàlla nee na liy wane ne Isa du sama doom du yàlla yaayam du yàlla nee na Isa moom dama lay wax kan la nga ne ko Isa lan la mu ne ab yonent la bul jommi mukk ba ëppale ko ab yonent ñun ñooy def buñ jaaxlee ci nit ne diw de yow uh yow sawaay doo nit léeg-léeg ñu wax ko ku mën a daw sax boo dawee ba raw ñëpp ñu ne la doo nit waaw dafa gaaw léeg-léeg nit sax gëm nit aj ko ba génnee ko ci marte bam nit yàlla nee na Isa ab yonent longu la te am na yeneen yeneen yonent yu ko jiitu woon waaye ñooñu moom lan lañ kon jàppe leen leen ay yonent dong ñu ne ko d'accord nañ waaye yaayam nag mu ne yaayam ab dëggalkat la àggut ci yonent waaye siddiqa allahu akbar Mariama mu baax ma yàlla ne duñ yàlla de ndax ñoom yaakulaani taam dañuy lekk te yàlla nee na lekk daa bokk ci liy wane ni nit ki du yàlla léegi nag xoolal koo fi gëm rek bëgg koo teg palaasu yàlla bu añ jotee mu añ baa mu reer baa mu xéwlu rek yàlla nee na du man ndax lekk daa bokk ci liy wane matadig nit waaw la topp ca gannaaw lekk tax ku lekk ku ne da nga soxla barab booy dem léeg-léeg làqu fa faj fa sa aajo <laughs> muy wanag waaw lekk gaa tax nga soxla wanag kon ak nite la ak nite la moo tax wax ju xóot la yàlla wax ci baat boobu kaanaa yakulaani taam aka naqaree digg moo tax lam ca teg mooy unzur kayfa nubayyinu lahumul ayat summa unsur annaa yufakuun suñ boroom nee na xoolal rek ni may leerale mbir yi ni ma leen koy leeralale di leen cax di leen ko leerale waaye daa mel ne dégg ngeen ci war a dégg ak taxawaay bi ngeen ci war a taxaw jamono ju nekk rek mu mel na dangeen koy defal ginnaaw wax nañu lu ne waaw wax nañu lu ne ngir delloo si ñu ak bëgg ñu bàyyi xel bu baax a baax suñu taxawaay Isa Muusa yonent yàlla Muhammad yonent yépp lañ digal ab jullit mu gëm leen waaye nag na gëm ne rek ñoom ay yonent lañ na gëm ne ay yonent lañ moo tax feet yi nga xamante ne mooy feet yi am moo xam léeg-léeg mu am ci calendrier bi rek ñu xëy ne liggéeyuñ tey yi ci ëpp day delluwaat ci ponki diine yi nga xamante ne ñu gëm loola dañ koo gëm benn mu del mu dellu ci siif yi wala mu dellu ci chrétiens yi al yahud wa nasaara te sariya yooyu da caa bari yoo xam ne dañ koo soppi soppi diine ya soppi feet ya soppi ya nga xamante ne moo ca xewoon soppi yooyu nga xam ne moo ca xewoon di ca wax wax yu rëy yoo xam ne borom bi subxanahu wa na ba ko asamaan déggee suuf dégg ko ñoom kaadat an yatafattar na ñu dajjeeku suñ borom moom lay wax ne waxaalu taxasa arrahmaanu walada laqad jitum say an idda takaadu samaawaatu yatafattarna minhu wa tansaqu al ard wa taqiru al jibaalu hëdda walada wa maa yanbaxi lirraxmaani an yattaxisa walada in kullu man fi lsamawati wa ardi illa aati rrahmanu abda laqad ahsaahum wa addahum adda allahu akbar suñ borom nee na yéen a wax lii yéen a wax lii ñi ngay wutal yàlla doom nee nañ yàlla am na doom yàlla nee indi ngeen lu bon waaw ngeen wax ju yées ju dellu ginnaaw joo xam ne asamaan bam ko déggee daa tiit daa tiit bay bëgg a naaw noonu nga daan gis ngelaw lu bari ci àll ba ñu ne permat fàq na wala sàq ma nangam na yàlla nee na asamaan tuuteetee mu dajjeeku ndax tiit suuf si itam tuuteetee mu xotteeku ndax tiit montagnes yi tuuteetee ñu màbbu ndax tiit ndax yéene wutal yàlla doom allahu akbar yàlla nee na yellut ci ngeen may wutal ndend ngeen may wutal doom ñi ci kaw asamaan ak ñi ci suuf ñëpp samay jaam dong lañ ayuhal ixwa mbokk yi bàyyi xel almisbaax góor góorlu seen diine jaral leen lu ne ñuy nangoo jaamu yàlla fajar gi nga dagg say nelaw yor sa kurus léeg nga jël sa alal def ko ci ne da aji màkka bu weeru koor ñëwee nga yendoo xiif yu bari neex lool nga yëg na daa araam tax nga bàyyi ko bul yàq sa jëf yooyu ci yi xew te toppandoo di la ko indil buñ bokk ci feet yi nga xamante ne du feeti jullit yi buñ ndokkeelante ci loo xam ne ak neen lañ diine lislaam indil nañu len lu nekk fañ ca war a taxaw ak nañ ca war a góor góorloo ak fañ ca war a yem te buñ ca yemee rek tàmbalee mucc buñ ca yemee rek tàmbalee mucc yàlla nañ mucc ñun ñëpp ndax mucc lu jafe la waxoon naa la ci bindu démb ba ne la jullit moom bu bëggee ay feet am na ko bam doy ñaari feet yi ngi nii yoo xam ne yu officiel la yoo xam ne lislaam nangul nag ko ba ci njëkk mooy iidul fitri ñi koy wax korite korite ndax jullit bi daa def ponkam di ponkub lislaamam bu tudd woor weeru koor woor weeru koor bam ca noppee muy kàbbaral suñ borom ak di ko màggal ak di ko sant noonu sax la ko borom bi waxe weeru koor ci laa wàccee alxuraan alxuraan nekk ak njub gu gu ñeel nit ñi ak ay orientation yu jub ak luy teqale dëgg ak lu du dëgg ku fekke weer bi na ko woor ku feebar walla nga tukki nanga bàyyi ba ñibbisi wala nga wér yàlla ne dama bëgg ci yéen ak jàppandal bëgguma ci yéen ak jafeel na ngeen matal nag la ngeen amee ci fay waaye na di bàkk seen borom subhaanahu wa taala ginnaaw ba ngeen ca noppee wali tukabbirullah ala ma hadakum wa laallakum taskurun kon bi feetu korite ñëwee sax suñ borom dalaa jàngal nan nga koy defee wa takbir fil iid min waaw nga bàkk borom bi subhaanahu wa taala feetu ki ginnaaw bi nit ki matalee ponk ci lislaamam di ponk juróomeelam bu ñuy wax ponk aj fa ida qadaytum manasikakum fazkurullaha ka dikrikum abaakum aw asadu sikra kooku it war a màggal war a war a war a bàkk boroomam subhaanahu wa taala ñi demul ca aj ga def ko fàttali ko fi yonent yàlla ibrahima jaaroon ak doomam ja ismail waxoon naa la ko ci bindu démb ba kàbbar yooyu ngay def ci feetu tabaski julli ga nga koy def rendi ga nga koy def yooyu yëpp danga koy def ngir jublu ci borom bi subhaanahu wa ak ñetti fan yi ci topp muy ayaamu kon fal ayaadu indana nahnu almuslimin lahaa siffa addiiniya lihaada laa yajuusu lana an nastaqbal li axyaadi alxarbiya walaw kaanat min caadatihim fa kayfa ida kaanat acyaadan diiniyan kama laa yajuusu lana an nabtada ayaadan uxra fi diinil islaam mbokk yi bu mbir mi leeree ci suñ bopp naññ dañuy xam ñun fan la ñu yem xam ne kon du dagan mukk ñuy ànd ak feet yi nga xamante ni ñooy jóge Occident leen lu ne ñu beral ko ab bis waaw premier jour de l'an vingt-quatre décembre trente et un décembre quinze août nangam mais moom daal feet yi daa bare bari booy xool calendrier bi li ci ruus kenn xamul nu mu yooyu yëpp bu ca dellu ci ak jaamu yàlla rek bokku te tournée nationale de nangam loolu mën na caa bañ a dellu ci pas-pas waaye bu dellu ci ak pas-pas rek na ko fa ab jullit won ginnaaw waaw won ko ginnaaw bañ caa bokk bañ caa bokk bañ a bokk ca feet ga bañ a bokk ca ndokkeelante ba bañ a bokk ci joxante kado ya wala ya nga xamante ne moo ca am yépp ab jullit da koy moytandiku borom bi subxanahu wa taala nee na walladina laa yashhaduuna suur wa ida marru bi laxwi marru kiraamaa booba ma ngay tagg ñi nga xamante ne ñoom dañoo am fulla yàlla nee na mooy jullit dëgg-dëgg mooy ko am fulla mooy koo xam ne bu rombee ak neen te mooy loo xam ne yoonam nikku ca feet goo xam ne du gosam am tëgg ak fecc yoo xam ne lislaam da ko ne yow ka la ci nee na da koy romb romb gu tedd day daal di dem yoonam waaye nag du seede loo xam ne du dëgg ndax seede aw aw sos mooy seede loo xamante ne ni amut doomi yàlla nangam nangam te yooyu moo fees dell ci feet yi nga xamante ne mooy feetu al ñi nga xam ne ay bokkaalekat yi suñ borom subhaanahu wa taala la yal nañ yàlla musal ci bokkaale ko moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee madinatul wara dafa fekk ñaari bis moom la anas ibnu malik di wax ne xadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam almadina wa lahum yowmaani yalcabuuna fiihima fa qaala maa haadaani alyowmaani qaaluu kunnaa nalcabu fiihima fi ljaahiliya fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha qad abbalakum bihimaa xayran minhuma yowmul adhaa wa yowmul fitri nee na waa madina suñ borom yonente saa sallam fekkoon na leen ñu am ñaari bis yoo xam ne seen bisi eh, feet lañ ko defoon waaw seen bisi feet lañ ko defoon di ca cokk cokkeeka di ca def yañ cay def yépp nee na yonent bi ba mu ñëwee da leen wax ne leen suñ borom wuutalal na leen ko yeneen ñaari bis muy bisu tabaski ak bisu korite muy bisu tabaski ak bisu korite kon xam li nga am day bokk ci li lay dimbali ba nga mën a sàmm sa diine ba nga man a sàmm sa diine te ni ngay góorgóorloo nag ba ne da ngay sàmm sa alal di góorgóorlu ba ne da yooyu yëpp ngir mu ñoŋ sàmm sa diine da koy gën a ñoŋ jullit nag waxoon naa la ne la laa nu farriqu bayna ahadin min rusul yow loolu nga jàngoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na la dëgganut ci ñun jullit ñuy teqale benn yonent ak moroom ji ñun loolu mooy suñ foor loolu mooy suñ foor daa am ñoo xam ne dañoo gëm yonent yàlla Muusa waaye gëmuñu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am ñoo xam ne dañoo gëm yonent yàlla isa waaye gëmuñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ab jullit nag ñu ne na nga gëm yonent yàlla muusa alayhi salaam dégg nga sax kaamil alquran bi muusa ko fees dell ak i nettaleem ñu ne na nga gëme isa waaye yow isa mi ngay gëm doo wax ne doomi yàlla la isa mi ngay gëm doo wax ne moom lañu daaj déedéet suñ borom neen la kenn daaju ko kenn rëyu ko bal rafaahu llahu borom moo ko yéegal noonu nga koy gëme noonu nga koy gëme doo gëm ni doomi Mariama la doo gëm ni it Mariama soxna suñ boroom la subhanallah loolu doo ko gëm doo ko gëm li nga koy gëm mooy dangay gëm ne Isa jaamub yàlla la ndawam la suñu borom subhaanahu wa moo dogal la ko soob ci kàttanam ak sañ-sañam yonent yàlla Isa juddu ci lu amul baay suñ borom subxanahu wa moo ko def dugal ko ci ngëm-ngëm te noppalu ci bañ cee dugal science nga gëm ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la jàngale te loolu la joxoñ Mariama may ndeyam it suñ borom itam subxanahu wa taala loolu la ko wax moo tax ba mu ñëwee mbir ma rëy rëy ba mel ne daa lottu ci layal ko ñu tuumaal ko ne ko sa waajur ku baax la xamewuñ ko woon naka su dul noonu. yow mii nga ñëw bëgg fee indi doom joo xam ne kenn xamut fu mu juddoo daa joxoñ liir ba ne waxal ak ñoom ñu ne ko Mariama bu ñu euh, soofantal nan lañuy ñuy xale bu tëdd ci berso Isa leen maa leen di tontu ndax saa ndey gor la te li ko war rek la def man jaamu yàlla laa inni abdullahi aataani alkitaaba wa jaalani nabiya wa jaalani mubaarakan aynama kunt wa awsaani bisalaati wasakaati maa dumtu xayya wa barran bi walidati walam yaj'alni jabbaaran shaqiya wa salaamun alay yawma wulidtu wa yawma amuutu wa ma ubxasu xayya suñ borom ne dalika isa bnu maryam xawlul xaq fii fihi yamturun kon kooku la bëgg ñu jàpp ko ñu jàppe ko noonu jàppe noonu mboolem li nga xam ne moo am solo ci loolu danañu dimbali ci ñu gën a mën a sàmm suñ diinee yàlla nañ ko yàlla boole defal dund fukki weer ak ñaar nag bu jotee buñ ko yaatalee ku ne mën ngaa taxaw def sa taxaw seetlu bopp mbokk yi at mii di jàll yow ñaata yoon nga fi jàng alxuraan bi ngay dugg deux mille dix huit foo tolloon bi nga agsee deux mille dix huit ba di ko jeexal dugg deux mille dix neuf foo toll xanaa bu doon weer wu ne mokkal nga wenn saar wu ndaw nag ni nag lee nga jeexal saari xare yi nag am nga fi fukki saar ak ñaar kon fukki suurat ak ñaar yoo xam ne yow bu kaamil amatul woon yooyu yow mën ngaa garanti ne dinaa ko indi <laughs> waaw mën ngaa gaarante ne dinaa ko indi loolu yitte la joo war a def defoo ko woon suñ borom may na la dund nga fekkewaat ko am nañu ko fekke fekkewut ñoo xam ne ñun ak ñun ñoo ko doorandoo woon ñu doon jàmbaar soxna bu faal yal na ko yàlla yokk yërmande daan taxawee nii ñu daan taxawee dàq ko ñu bari di ci góorgóorlu waaye yàlla dara feesut bëtam ba am àppam jotee da ko ni ñëwal sëriñ Sid Lamine Ñas mu baax ma daan taxawee lu mel nii ba rajo bu koy def suñ borom dara feesuti bëtam ba am jotee da ko ni ñëwal xalifa yi fi nekkoon yu baree bari ba mu leen soxlaa ci diggante bi dana leen ñëw leen ak ñi xam ak ñi ñu xamut te ñenn ñi doon jàmbaar ñii di boroomi xam-xam ñii di boroomi alal ku matal dem nga bokk ci sansu nag di ko fekkewaat te ñooña koo ci ne woon këpp këpp ne ko loo bëgg amaat mun la dellu àdduna ba dab dabaatal ñun nag ñoo ngi fi te xamuñu kañ la suñu àpp di jot yàlla na yeex faaw olof teg ko ci waaye nag nañ góor góorgóorlu ci dab dabaatal góorgóorlu ci màng suñu dund ci aw yiw yal nañu yàlla boole sàmm yal nañu yàlla boole taxaw ñoo ngi leen di jégguluwaat bu baax a baax delluwaat di sàkkuwaat ci yéen ñaan bu baax a baax ni ma ko ubbee woon ndax Oustaz Alioune Sall xam naa boo noppee ci waxtaanu fajar rek nga daal may jox sama cadeau anniversaire mantam donte looloot kenn xamut foo koy dugal sax waaye mi ngi noonu mooy bis bi nga xamante ne moom nga juddu woon moo dellu si waat nga di ci évaluer sa dund ñu ngi ñaan ngeen ñaanal ñu nag xam naa léeg-léeg kenn ne ma ñaata at ci ren ne ko bëreegut bu ko defee rek ñu ñaan fukk ak tuuti yooyu <laughs> suñ borom yokk koo ful yal na ko ful ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax baax te di leen ndokkeel yal nañu yàlla boole sàmm yal nañu yàlla boole taxaw defal ñu jàmmee àdduna ak alaxira defal ñu suturos àdduna ak suturos alaxira jaajëfal nañ leen bu baax a baax jaajëfal Oustaz Alioune Sall ñu ànd ñun ñëpp déglu ko ci waxtaanu fajar eh, ñaan suñ borom subhaanahu wa taala mu sàmm ko seen mbokk Mbàkke si la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di Al Misbah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu